Idrissa Elimane Wane. Bonjour et merci de suivre ce bulletin d'information en français et en wolof. Assane Thioune à la partie technique. Bulletin que nous démarrons avec les pluies tombées dans la soirée à Dakar et dans la banlieue où nous retrouvons El Hadj Bonjour El Ah oui, bonjour Absa. Quelle est la situation au niveau de la banlieue? Oui, il faut retenir que la pluie s'est arrêtée hein, tout à l'heure, que, quand même, il abattue tout à l'heure euh, dans la banlieue et à moment même euh, la circulation, mais qui a repris parce qu'il faut un système de latence pour quand même pouvoir euh, évacuer les eaux dans les grandes artères avec donc les motopompes. Ce qu'il faut également dans d'autres localités si la pluie continue donc de tomber durant l'année, puisque le ciel est toujours menaçant, on risque de revivre les mêmes situations que la semaine dans certaines communes comme Diamaguène Sicap Mbao ou également même si des euh, motopompes ont été prédispositionnées l'eau commence quand même à avoir certaines localités mais également du côté de Keur également là aussi euh, on croise les doigts parce que là aussi euh, même si une demande a été donc satisfaite c'est-à-dire au niveau de l'unité 3 une motopompe a été très prédispositionnée mais on va essayer de voir d'ici demain quelle, quelle la situation mais toutefois, euh, donc, euh, si le ciel euh, continue quand même pour une savane, la situation pourrait quand même s'aggraver d'un moment à l'autre, mais quand même, certaines dispositions ont été prises par les autorités pour essayer d'évacuer dans certaines localités, même dans certains quartiers. On continue toujours de réclamer également des motopompes, comme à la cité Sotrac et dans d'autres localités, où également les eaux continuent quand même toujours de faire souffrir les populations.

Diallo a succombé hier soir à un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement de football. Le maire de Djoudoubou estime que l'enclavement de sa commune et l'éloignement du poste de santé n'ont pas facilité l'organisation des premiers secours. Désolé, Ibrahima Djité est au micro de Moussa Dramé. Nous venons d'assister à une scène odieuse des suites de la crise cardiaque. Le jeune étudiant en vacances chez ses parents dans son village natal de Manékounda commune de Djoudibou Moustapha Adrien Mané presque vingt-huit ans qui étudie à l'université Cheikh Anta Diop a rendu l'âme durant euh, l'entraînement avec au niveau du terrain du village c'est vers les environs de 17 heures. En prélude de navetaan, des jeunes au terrain du village de Manékounda. Subitement, ils ont vu tomber sur une situation difficile. Ils ont essayé de trouver un moyen précaire de transport pour l'amener au poste le plus proche qui se au minimum 8 kilomètres. Malheureusement, arrivé au poste, il a rendu l'âme. Cette scène vient de mettre en exergue le manque de prise en sanitaire dans la commune de Dioudougu parce que étant l'une des communes rares communes qui n'a même pas de poste de santé dans tout le territoire communal nous avons pensé que s'il y avait un poste peut-être le premier secours allait être fait mais la distance le manque de transport d'ambulance n'a pas joué à sa faveur. Présenter le maire de Djoudoubou, la commune de Djoudoubou, donc dans village de Mané Kounda, où un étudiant de 29 a succombé à, suite à un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement de football. 5 millions de voyageurs à l'horizon 2025, un objectif Sarr a invité les acteurs à faire des vols d'Air Sénégal des vols sûrs, agréables et qui partent à l'heure pour réussir le pari de faire de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass un hub sous-régional. Alioune Sarr est au micro de Moustapha Sall. Notre pays peut prétendre atteindre son objectif de générer un trafic annuel de millions de voyageurs à l'horizon et millions à l'horizon et même au-delà. Mesdames, Messieurs les membres de la coordination, Le 2 septembre 2021 aura lieu le vol inaugural Dakar-New York-Washington par Air Sénégal. L'ouverture de cette par notre compagnie aérienne nationale marque une étape majeure vers la réalisation de notre objectif de faire de l'AIBD un hub aérien sous-régional. Déjà, le nombre important de passagers en correspondance dans le premier vol est un motif de satisfaction. Le directeur général du Sénégal pourra donner des éléments plus détaillés tout à Cependant, il nous faudra redoubler d'efforts à tous les niveaux sur les questions de sûreté et de sécurité, mais aussi en matière de facilitation sur tout le parcours passager. Ce sera, serait le gage de l'attractivité et de la compétitivité de notre aéroport. Ce matin, nous avons visité des éléments qui étaient des éléments essentiels, notamment le parcours transit, mais aussi les boxes d'enrichissement. Et nous avons vu avec satisfaction que l'ensemble des listés ont été levés par les exploitants et tous les services de la plateforme aéroportuaire. Par conséquent, je voudrais donc inviter tous les acteurs, Air Sénégal en premier, mais aussi AIBD ESTA, la haute autorité, l'AS, 2AS, PSA, à faire des vols d'Air Sénégal, des vols sûrs, qui partent à l'heure et laissent aux clients passagers une exceptionnelle et agréable. Les vols vers les États-Unis d'Amérique vont sûrement contribuer à relancer le tourisme, mais aussi les relations commerciales entre les deux pays. C'est pourquoi j'insiste pour que l'ensemble des équipements de sûreté nécessaires au transport du fret par Air Sénégal dans ses vols vers New York soient rapidement mis en œuvre C'était le ministre du Tourisme donc euh, et du Transport aérien Aliou euh, Sarr. Retenez que la communauté mouride est en deuil avec le rappel à de Serigne Cheikh Dieumb Fall, le khalife des Baye Fall. Et en sport éliminatoire euh, Coupe du monde le Sénégal reçoit le Togo ce à 16h au Stade Lat de Thiès. Sud FM di leen jox xibaar yu gaaw te dëgg Elimane Wane asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci rajo Sud FM rawatina xibaar yu njëkk yi nga xam ne mooy tey ji àllarba di benn fan ci weeru septembre ci atum 2021 ñu ànd seek Assane Thioune dañu koy door ak tiis bi di euh, wuy ji suñu borom bi nga xam ne moom la Serigne Cheikh Jëmb Fall def euh, ci euh, talaata gi moom moo doon xalif général Kuli bàyyi Fall bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu doon nag mi ngi wuy ji suñu borom ca Mbàkke ñu dem ca Pakao foofu yi daal lu doy waar fa am benn ndaw boo xam ne ñaar fukki at ak juróom-ñeent la am nekkoon vacances ci dëkk bi nga xam ne fa la fekk baax di Manékounda nekk ci commune bu juddu Dioudoubou ci région bu Sédhiou moom daal moo doon def euh, football daal ci terrain bi la amee daal ay jafe-jafe jëmale ci wàllu wér-gu-yaramam maire bu Dioudoubou nag ne lii waral sax nag ba mujjee ñàkk bakkanam mooy ne daal dëkk boobu boobulee dafa sori lool wala boo ko amul ay yoon teg dafa sori lool ñu déglu euh, maire bu euh, juddu bu di ibrahim euh, jiite ci micro Moussa Dramé. ci nakari xol lañ nekk lañ nekk xale bu presque vingt huit ans moo faatu ci terrain de foot dafa daanoon crise cardiaque balaa ñu koy sobee ak distance bi fekk na dee ba pare xale bi Moustapha. étudiant la woon à l'université Cheikh Anta Diop mais tamit dafa nekk di joxe cours cours dans les écoles privées à Dakar dafa ñëwoon ci vacances euh, dem entraînement mu daanu crise fu mu daanee se situe à presque huit kilomètres du poste le plus proche parce que en toute la commune de Dioudoubou amuñu benn poste de santé yoon yi tamit enclavé wu nekk na situation bu doy waar balaa muy egg ci poste les plus proches fekk na dee na ci naqari xol lañ nekk on en profite pour faire appel à l'état commune de Diourbel tamit mu am poste de santé ne serait pour prendre en charge les premiers soins lu ñu soxla la lu ñu yitteel ñu ngi jaale ji population de la commune de bu tout entière c'était donc le maire ki doon wax ñuy euh, àddu muy euh, ñu koy teewlu daal mooy ki nga xam ne mooy maire bu juddu bu di Ibrahima Djité moom mi nga xam ne doon wax ci ndaw bi nga xam ne ñaar fukki at ak juróom am ñàkk bakkanam ca Manékounda nekk ci commune bu euh, juddu bu ci région bu Sédhiou dañuy dem fële nag ca Thiès fekk fa suñu ndaw bi nga xam ne mooy Babacar Ndaw Babacar Ndaw bi ñuy jéem a jot kii di Assane Thioune ak Sidi Gueye di ko jéem a jot euh, balaa ñuy dem ci Babacar Ndaw ñu fàttali leen ne dafa taw ci Ndakaaru ak ci euh, banlieue bi ñenn ci askan wi nag jaaxle lool ndax fi mu toll ni daal donte sax taw bi euh, taxaw na wante daal dafa mel ne mbir yi mun na soobaat ñu dem fekk ji ci banlieue bi ki nga xam ne mooy El Hadj Moussa Thiam El Hadj Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ab sa. nu mbiri tëroo foofu ci banlieue bi ginnaaw taw yi amoon sànq. waaw mën nañ jàpp ni euh, arrêté na ndaxte nag dafa sóobandoo benn soob bu métti sax boo xam ne nag ndox mu bëri wàcc na waaye teewul nag euh, naam sax bu nekkee perturbé na benn moment li nga xam ne moo di circulation bi waaye teewut euh, li nga xam ne yenn tamit ndox yi daal commencé na di dem bon li nga xam moo di circulation bi daal jëlaat na nu mu mel li ñu si mënti rek mooy tamit yeneen bërëb yi nga xam ne nag daanaka daal dañ ñoo doon dund jafe-jafe bu continuer di sóob ni nag moom mooy dinañ am jafe jafe-jafe naam bu nekkee sax plan ORSEC bi keroog semaine passée euh, bi nga xam ne nag lancé nañ ko boobee euh, teg nañu daal ay moto pompe ci yenn gox goxaat yi ni ki mel ni jàmm gën si kambaaw ak tamit euh, foofee ca Thion jak saaw ak yenn quartier yi ko wër foofee nga xam ne ndox mi sonaloon na leen ndax tamit bassin bi nga xam ne daal débordé woon néew te li nga xam ne moo di daal taw bi bu continuer di sóob daal guddi gi moom moom mooy te suba dana am daal jafe-jafe waaye nañ ko xool toppandiko évaluer ko su nekkee nag taw pare waaye nag ñu jàpp ni tamit foofee ci Kër Massar naam bu nekkee ci unité 3 askan bi ñoo ngi doon sàkk ñu defal leen moto pompe am na yeneen gox nag euh, comme cité Sotrac foofee ñoom ñoo ngi sàkku ba léegi ñu amalal leen euh, moto pompe waaye nag amaguñ ko ba léegi waaye tam teewut li nga xam ne moo di ndox bi daal ñoo ngi koy dund ci jafe-jafe li nag moom bu ko ne di sóob nag boo mooy daal yenn situation yi dinañ ko ne di ko dund waaye nag ñu xaarandi li nga xam ne moo di daal effet moto pompe yi nga xam ne def nañ ko ndax dana am njëriñam déet ndax ndox mi nga xam ni euh, fas yéene na wàcc wala daal bu wàccee guddi gi ñu xool ndax du indi loraange tuuti ci jëmale ko ci askan bi loolu daal moo situation ñu nemmeeku fii ci banlieue bi El Hadj Moussa Thiam ko jot lii pour la rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam jërëjëf mu ñu doon wax ginnaaw taw yi nga xam ne moo taw sànq euh, ci ndakaaru ak li ko wër maa ngi leen doon wax léegi dafa mel ne taw it laal na ba ca dañuy dem fekk fa suñu ndaw bi ñu fa teewal di euh, Babacar Ndaw Babacar ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay foofu ginnaaw taw yi am. mënul génn dem na sax ba diggante ba 9 heures ci am fa ngelaw doole so ànd ak ay dën ne yenn garab yi sax daanu nañu bu ñu xayma bu weer wóor mooy ñoom nee na information yu bëri dafa am ay yàqu-yàqu rawatina moyenne tension bi ba tax na quartier yu bëri si biir carrière nga xam ne seen rek ne quartier yi damay parcelle ay mbuur Euh, quartier yooyu yëpp ñu ngi depuis dinañ dellusiwaat euh, ñàqul ci euh, Babacar Ndaw di ñu doon euh, xamal ne nag taw yi daal am na fa yàqu-yàqu yu bëri ndax dafa ànd ak ngelaw foofu foofule ca Thiès benn dëkk ñaari gaar ñu wéyeen jëm ci xibaar yi waxtaanee mbirub l'aéroport ak li ko war rawatina juróomi million yi nga xam ne daal moom la yaakaar ne daal fii rek atum 2025 dinañ ko am ci ñi nga xam ne mooy limu ñi nga xam ne ñooy tukki kii di ministre bi nag dafa demoon tey ci aéroport international Blaise Diagne moom Alioune Sarr ngir euh, xool daal nan la ñuy waajalee euh, vol bu njëkk buy jugee ci euh, Sénégal dem fële ca États-Unis Alioune Sarr la ñuy ndax boo jëlee réew ba am compagnie aérienne am infrastructure aéroportuaire day indi investisseur ndax kat ku ñu investir ci ab bërëb. bërëb boo gën a yomb mën a dem fa koy def donc loolu nekk nga loo xam ne également lu am solo la diggante di ko njiit waxee ak tey nag gis ngeen tabax nañu lu naan ab stratégie maanaam benn document boo xam ne ci la ñu rëdd lépp lu ñu war a def fii ak juróom ak yi ñëw kon amul benn benn hésitation d'ailleurs euh, bu fekkee ay béy yoon exemple stratégie bi comme ça ñu def ko parce que xibaar yi parce que transport aérien amul looy tànn mbaa looy dafa nekk loo xam ne dañ ko normé bind ko nekk aussi loo xam ne bëggul coow lu bëri ndax dañu bëri ay wujj ci biir sous-région am na réew yoo xam ne place bi Sénégal bëgg am moom lañ bëgg jël kon nag ñun ñëpp waa Sénégal dañu war a nekk benn dànk boot ci lii président rek wax jël liggéey bi dégg ko ay biir islam nga xam ne moomee bras armé di gouvernement ci affaire aéroport ñu xam ne Sénégal moo ñu tiim ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ndax lépp lu ñu wax luy xajamal transport aérien yaa ngi yàqal président de la république yaa ngi yàq réew mi te it suñu ay wujj bu ñu ko déggee ndam la ci ñoom te yaakaar naa ku nekk Sénégal war a fexe éviter loo xam ne day gaañ suñu koom-koom kon maa ngi ñàkk a xabaar yi ñu jox la lépp loo xam ne mu ngi ci ci ëpp aérien ko ngeen gëstu su ngeen amee lépp lu ngeen di laaj service yaa ngi fi te réseaux yaa ngi ñëpp toog ndax liggéey bi du liggéeyu ay mbédee kese du liggéey ministère transport aérien kese liggéey gouvernement Sénégal ndax projet président de dégg ngeen ko ci film bu ñu jagleel réalisation li mu wax ci transport aérien ki doon addu euh, ñuy euh, teewlu mooy ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak euh, transport aérien ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram jàppale ni ci lu jëm ci éliminatoire coupe du monde atum 2022 22 Sénégal nag dana jàkkaarloog Togo ci àllarba bi bu ñeenti waxtu jotee ca stade Lat Dior de Thiès lay ne li leen leen indiloon ci wàllu xibaar ñu jéggalu ci rëkk-rëkk yi direct bi moo ko waral bu fajar jotee ak jàmm beneen équipe dina fi teew ngir dëgtal leen yeneen i xibaar ci français ak ci wolof ni mu gën a yaatoo ñu sant Assane Thioune bi ñu ci àndaloon sant leen it yéen ñi euh, safoo rajo Sud FM di ko déglu saa ne dañu leen bàyyeek euh, Sidi liggéey l'homme de la nuit l'homme jaraaf ci émission bi di taal leen lamp yi